mbokk yi day yell lool bu bis yi jotatee ñu taxaw ci jàngat ko xool bu baax loolu lum ñu mën a jëriñ sunu diggante sunu boroom lum ñu mën a jëriñ sunu diggante ak bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonente bi kat du ay wax rek waaye ay jëf la soo bëggee yonente bi dangay ngay jikkoom daa di def lam daan def daal di koy topp ndax sunu borom loolu la wax dañu da ngeen koy topp bu ngeen ko toppee rek topp ngeen ma kenn du gëm ci yéen lu dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu attee yéen ñëpp ngeen ànd ci daal di jébbulu daal di nangu atte boobu yi ndax moom kat yàlla moo ko garanté ndax du wax ci bànneexam mukk wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa moom day du wax ci bànneexam lu ko yàlla wax roo rek lay wax looloo tax yàlla jox ko leer muy alquran tegal ko ci geneen leer muy alhadiyu nabawi asharif kon nañ xam ne yonent bi daal eh, yàlla min ko wàcce màkka màkka doon pàkk bu sell tàmbali woote bi ak li njëkk woote bi foofu la ko def am na ñeen fukki at sunu boroom doog ko yónni ci mbindeef yi waaye ku ne xam na ne loolu ni tiise ak ni mu méttee daan ànd ak aw nit ñu xam la nga xam leen nga jékki-jékki ñëw ci ñoom ne leen sunu boroom moo ma yónni ci yow ni muy diise ak ni nga yaakaar ne boo ko waxee ñenn ñi danañ ko gëm ñenn ñi danañ ko duñ ko gëm mu laaj ay firnde ñenn ñi danañ ko gëm ñenn ñi duñ ko gëm ci jaww ju mel noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali woote bi tàmbali bi nag bi mu amee ñeent fukki at la ko tàmbali waaye la ko jiitu woon sunu boroom defaloon na ko ay jikko yu rafet yu teey yoo xam ne ñëpp xam nañ ne lu mu wax rek noonu la bañ na ko ba dañ ko daan tudde al amin ku am wax joo xam ne bëggoo mu tasaaroo moom nga koy wax séq koog moom ku am looy dénkaane moom nga koy dénk ku am secret moom nga koy waxal kon loolu sunu boroom namm na ko waajal ko ci ay jikko yoo xam ne eh, bu ëllëgee bu ñëwee lu mu wax ñu xam ne loolu yi dëgg la ba ci eh, li nga xam ne moo xewoon màkk ci jamono jooju ñu koy tuddee ay layaali sumur nga xam ne léeg-léeg sàmm yeeg ñi nga xam ne dañuy eh, doxantu léeg-léeg ñu am foo xam ne dañ fay daje ci guddi yi di fa eh, passé daal li ñuy tuddee passé la nuit di fa def guddi gi di ay xawaare ak kaf ak ay ree ba fajar sallallahu alayhi wa sallam li nga xamee ne xam na ne am na lu ko sunu borom defal am na guddi goo xam ne dane faaw ma dem foofu seeti lañ fay def ba mu demee eh, bàyyi la doon sàmm am fu mu ko bàyyi dem di jëm foofee bi mu demee ba jëb dëgmal yoon ba sunu boroom daal di koy sol eh, nelaw mu tëdd nelaw ba muy eh, jóg fekk na ñooña noppi nañ la def kon yoon woowu daat koy raw weneen yoon mu jéemaat ko sunu boroom jaaraat ak moom foofu mu xam ne kon loolu du cërëm mu daal di génn ci loolu di dem xaaru xiraa di fa jaamu yàlla booba jaamu yàlla yi ñuy def euh, ni ñuy jullee di ko woore du woon xeet yi mu amoon waaye daan xalaat sa diggante ak sa borom di def li ñuy tuddee tafakkur daan euh, xalaat taxasuf dégg nga xalaat ne àdduna bi daal am na ko ko fi indi ñun ñii daal am na lu ñu fi indi ñun ñi daal war naa am lu ñu fi bàyyi yooyu moom daan na ko xalaat te booba sunu borom yónneegu ko